yaa man maa ngi la la la la sax sax noppi man maa ñëw la ilaha laa إله إلا الله فلا إله إلا الله لا إله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 ilaha illallah ba la ilaha illallah ba la ilaha illallah ba la ilaha illallah ba la fa la la bari bari. bari mooy nan delloo sunu bopp nag. mooy nan delloo suñu bopp nag. ci yarub kër gi. ci yarub kër gi. léegi nag. nee léegi nag. sëriñ bi moom. sëriñ bi moom. wàccoo na ak ñun. wàccoo na ak ñun. liggéey liggéeyloo nanu. liggéeyloo nanu. liggéeyal nanu ko. liggéeyal nan ko. ñëw na xool si liggéey bi. ñëw na xool si liggéey bi. nan ko may fu mu jaar. nan ko may fu mu jaar. yëngu bépp na. yëngu bépp na de Baye Fall. jërë ngeen jëf. nee jërë jëf. kaddu yooyu rek lañ ci doon. kaddu yooyu rek la doon jottali moom Serigne Saliou Fall. ndax li li tax ma di ko wax nag. ndax nee na li tax mu di ko wax. bi Serigne bi ñëw daal. bi sëriñ bi ñëw daal. gis naa loolu moom xaw na maa jaaxal. ah gis na loolu xam na ni xaw na koo jaaxal ba feeñ ca wax ji. te xaw na maa tiit loo it xaw na koo loo nag. bu sëriñ bi deetee ñëw. nee bu sëriñ bi deetee ñëw. boof leen. nan boof. ah loolu de moo daan am. nee loolu daan am de. ci liñ fi jot a ci liñ fi jot a ñoom. daan ko gis. daan ko gis. bu kilifa daan ñëw. bu kilifa daan ñëw. ñëppay sukk. ñëppay suk kenn du yëngu. kenn du yëngu. ba mu jaar ci seen biir ba jàll. ba mu jaar ci seen biir ba jàll. kenn du ko xalaatu nuyu. du ko xalaata nuyu. wala nga yëkkati sa kàddu. wala nga yëkkati sa kàddu. waaye yëngu bii ñu fi yëngu tey jii. waaye yëngu bii ñu fi yëngu tey jii. doy na waar lool. nee doy na waar lool. ñu ngi sant nag ñëpp. nee ñu sant nag ñëpp. te nuy may sëriñ bi rek. te nuy may sëriñ bi rek. muy gis liggéey bi. muy gis liggéey bi. ak dal akuk teey. ak dal akuk teey. mooy mën a tax mu ñemee dugg ci suñu biir. mooy mën a tax. sëriñ bi ñimee dugg ci suñ biir. waaye lii ñu doon def léegi kat. waaye lii ñu doon def léegi. suñ ko bawul kat. suñ ko bawul dey. daañu ñu xañ sëriñ bi ci mu gis sunu liggéey bi. dinañ xañ sëriñ bi ci mu gis sunu liggéey bi. jërë ngeen jëf. nee jërë ngeen jëf. jërë jëf. jërë bi gis na liggéey bi. sëriñ bi gis na liggéey bi. waaye manoon na. waaye manoon na. jëwriñam bi mu daan yebal. jëwriñam ji mu daan yebal. mën a dox ba tiim ko. mën a dox dem ba tiim liggéey bi. waaye fi ne mënu ko. waaye fi mu ne mënu ko. ndax bu jógee. ndax bu jógee. ma jóg mu jóg. sëriñ mii jóg. sëriñ Mbacke Fall mii jóg. ñëpp jóg ñëpp dañu bëgg a jóg. te kenn ku ci ci ñoom te kenn ku nekk ci ñoom am na lu ñu la def loo am nga lu lay def loo moom mi itam moom mi itam dafa am lu koy def moom Serigne Cheikh Fall mii dafa am lu ñu koy def loo kon bu kon buy seeti liggéey bi may leen ko mu dem xool liggéey bi ndax moo moom loolu ndax moo nee na moo moom loolu yéen la ngeen moom yéen li ngeen moom yéen nga ca yéen nga ca yooyu wax leer na de dinañ ko jëfe de jeex na dinañ ko jëfe dinañ ko jëfe sëñ bi dina jug dem xool ko waaw sëñ bi. waaw am ko gën maa ngi gën. waaw. ñu mel ni ñu mel ni yëpp maa ngi gën maa ngi gën. waaw. waaye moom moom si laaj. Mhm. maa ngi sant baax. Mhm. maa ngi gërëm baax. sëñ bi dem li li mu dal rek. Mhm. li mu wax. sama xol kenn ci biir. ndax ndax ndax ñu wax ñu baax du wax. waaw waxoon nga ko waxee wax nga rafet. wax nañu ko jëwee. li li li mu wax. asalaamaaleykum. wa rahmatulahi wa barakaatuhu. ñu jottali ay kàddu yu bàyyikoo ci sëriñam Amdi Fall jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall mu jëm ci jëwriñam jii di sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng xanaa mu jàllale ko rek ci mboolem njabootuk Cheikh Fall gi nga xam ne ñoo teew fii di ànd ak sëriñ bi liggéey bi sëriñ bi nee na teewlu na kàddu yi yépp nee kàddu yi sëriñ Saliou Farsaw yi nee na teewlu na ko bu baax te nee na ni ko sëriñ saali waxe noonu rek la nee na mi ngi koy sant di ko gërëm ci noonu mu ko waxee te xam ne li mu wax lépp lu wér la dëgg la nee na teewlu naat kàddu yi Serigne Cheikh Ngunda mu ne kàddu yooyu de mënutoon a ñàkk mënu ko ñàkk dégg tey jii ndax nun ñëpp maase nañ xam ni Serigne Cheikh li mu wax lépp lu wér la ndax nun taalibe yi dañu koy dund bu wér a wér waaye nee na Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng nee na mi ngi lay jottali ay cantam di ko feddali bu baax ci sa jëmm ji ak njabootu Cheikh Rafal gi nga àndal yëpp ndigal lii nga xam ne jaar na si yow jàll si murit yi teew si kanamu sëriñ bi sëñ bi nee na bëgg na si murit yëpp nee na kenn ku si ne noonu ko sëriñ mu saa waxe ab taxawaayam ràññiku na lool ci liggéey bi nga xam ne moom la ko sëriñ Mountakha di liggéeyloo muy ndogu yii nuy togg ndax kenn ku ne ñëw nga fi moom waxtu wu ne di jaayanteeg moom ak di fedd li ak di yeesal sag jaayante ak moom kenn ku ne la nga am lépp indi nga ko jox ko sëriñ bi ngir mu defal la ko si liggéeyub sëñ tubaab bii nee na mi ngi sant taalibe yi nee na mi ngi sant bokk yi nee mi ngi sant ak njabootuk boppam muy rakki boppam yi nga xam ne ni mu ko waxee rek danoo bàyyi seenu njuréel ak seenu cër fële jënde ko ak taalibe di déglu ndigal te fas yéene koo jëfe te sëriñ bi mosu leen a dégg si dara lu mu leen di tere wala lu mu leen di aaye sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm te xam ne bëgg na si njaboot gi yëpp bëgg na si taalibe yi taxawaay bii nga xam ne am ngeen ko si bis bii wala sa njalbéen nga ba léegi dara ump ko si lenn lu si ne ñu ngi ko koy gaaral di ko ko wax di ko ko nettali mu di ko xam di ko jàpp bu wér-wér lenn lu ne nag lu si waay joxe nag agsi na fi moom loola mu ngi koy seere lu waay joxe rek mu jëm si liggéey bi sëriñ bi nee na agsi na fi moom te jot na si mi ngi leen di sant te di leen ñaanal sama borom kattanal leen te wéral leen te yokk leen ay xéewal ba nu ngeen bëgg a jekkoo liggéey Cheikh Ibra Fall bi ngeen mane ko noona wasalaamaaleykum wa rahmatullahi barakaatu. فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله waaw Fall lépp bagage yaa ngi nii de bool yaa ngi nii njaarim yaa ngi nii Tuubaa yaa ngi nii loo fi seen rek murid yi ko findi te jaar ko ci yéen addi Cheikh Fall ko def waaye kàddu yi nga ñëw faal dugg na lool de yaakaar naa boo lëggee dina wuute te fi ñu koy xamee mooy bu sëriñ bi jugee bay fatu ñëpp dañuy tëdd bu sëriñ bi jugee bay fatu ku yëngu seet koo tëdd ñëpp tëdd dootuñu taxaw duub nañ ko dootul am nañ ñu jéggal ngir ñëpp di Cheikh Ibra Fall ak bëgg rek la waaye du ab xam dootul am su amatul neel bu amatul jéggal nañu bu amee nag baalu ñu jéggal jéggal nañu mburu maa nga ne di dugg lépp ngi ñëw lii moo jëm Touba lii moo jëm Njaarim. Njaarim nag liggéey bi dafay dafay def toujours. nee Njaarim liggéey bi day def toujours. dañ koy def ñaar benn. dañ koy def ñaar benn. Touba ñaar Njaarim benn. ngir lañ koy séddalee ca Touba. ngir lañ koy séddalee ca Touba. dafay gën a yaatu. bopp day gën a yaatu ci Njaarim. ndax mboolem jëmatu Serigne Touba bi. liggéey bii kenn ku nekk dañuy fexe ba liggéey bi egsi ci yow kër gu ñu dugg rek la ko dale ci kër sëñ Modou Sa Mbacké ba mu jeex góor ak jigéen da kenn ku nekk da cay am ba ni koy egg ci kër Cheikh Mouhamadou Mourtada noonu dañ koy defe góor ak jigéen ku seera faal yéen ne ko dabul góor leer fa yéen ne ko dabul jigéen ba kër sëñ kon sëñ Amdi Fall Modou benn ñu mënu yaa ngi dellu ñaan rek nga gën koo jekkule waaw kon xam naa Serigne Cheikh si Saliou nee na si Cheikh Ndiaye mel gis na ko dégg ngeen kàddu yi dem gi rek a ci des nag buñ buñ ko mën a daal fi ne day dañuy tëdd dee naa bu bool yi buñ ko mënul nag ku accéléré wala nga corné leen waxoon fi tebbi ko doog leen ba ñii taxaw wax ni nan ko defe ñii ñu defe ko noonu loolu yomb na gaañi na tibb jox murid yi sëñ Cheikh mu ne nee na ñaan lu wute jox murid yi troisième coupé nga aj baat bi ñaan lu jox ñu yaa moom tibbal jox ñu amin na tibb jox ñu yaa leen lu bari léppay fees ci loolu Cheikh Ibra min faat jega min raayo leen rek leen waxoon de toog leen ilaha illallah إله إلا الله فلا إله إلا الله لا إله ha